asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara seen mbokk Alioune Sall ibnu alxaaji Abbas Sall radiallahu taala anhu ñu ngi dellu waat waaye nag dellusu dellu bi wuuteeg lool dellu si yiñ daan dellusi maanaam tey daal dikke nañu ak naqaru sori ci xol lool muy ay kàddu yoo xam ni ki ko yëkkati du du rekk benn waay bu ne ci mbedd mi ne taxawaalu rek wax lu ko neex ne kon du jar sax defi ojo wala am na ñeneen ñu mel na moom ñu koy tontu waaye ki def kàddu yi day mi ngi kàddu yi mi ngi jóge ci koo xamante ni si fii mu toll nii képp ci ñi ñi gën a yaakaar nii ñu taxaw di xëccoo pour euh, baatu réew mi pour nekk président de la république ci élection yi ñu jëm Idriss Seck moom jàpp nañ ni sax kii fi nekk nii di suñu njiitu réew mi yaakaar nañ ni yaakaar ni mooy ki gën a jàmmaarloog moom ba bu bu coono doon am ci kii ku ci gën a sonal moom la ñuy wax mu Idriss Seck kon bu waxee wax ji euh, wax ju tuutiwul moom nag bu yàggul ba léegi gis ngeen ni mi ngi wër réew mi ci façon yi nam daal mi ngi dem ci ñee kenn ko ni nu la mën a fum la mën a jekkoo rek ba bu ba mën laa am fu ne ma fay jaar dugg na wër na ci dëkk yi dugg na ci tarixa yi léegi nag xeeb na loolu mi ngi dugg ci diine ci mu ngi dugg ci diine ji lu tax mu koy def ah Israël nag ñoom de ña nga yor seen seen lañ yor rek boo nee ñoom ñu jàppale la ñoom ca seen façon yi nu jàppale yooyu détail yooyu jot mën naa ci sax bañ a gaaw a dugg waaye loolu xëy na bu ñuy defaat audio danañ ci ñëw tey dañuy tënk rek mais bu ñuy ñëw ci détail yi danaa wax euh, li ñuy moytu ci juif yi lu mu doon moom Idrissa Seck taxaw yëkkati ay kaddu yu ñàkk teggin yoo xam ni yaakaaruma woon ni nag danañ toog quarante huit heures te dégguma benn porte parole xalifa bu ci wax ni maa ngi wax ci turu xalifa nangam parce que xalifa yi day nangul naa leen gànt ni mën naa am réseaux sociaux yi walla yi duñu duñu duñ ko sax xam waaye nanguma mukk ni ña jege xamuñu lii yéguñu ko loolu du ko nangu benn xalifa laa gis mu yëkkati ci kàddoom muy xalifa sëriñ Haadi ture muy Abdul Aziz mu diir yàlla na ko yàlla yokk wér man de déggaatuma keneen dégg naa fi tamit ay doomi daara ku ci mel ne Seydi Lamine Niass ku ci mel ne Bamba Ndiaye ak Xaadim Awa Ba yaakaar naa su ma juumu ci tur bi ñoom de génn nañ kenn ku nekk wax ci yàlla na leen yàlla fay seen loolu ñu def ku déglu waxu sëriñ Abdul Aziz Touré bi danga gis ni lii mu def mbooleem kuy xalifa wala ku am kàddu koo xam ni boo waxee danañ ko dégg loola noonu la la ware te wallahi la ko tiital tiital nañu ñun ñëpp ndax kii day dafay dafa bëgg nekk président de la république ñi fas yéene jël seen carte bu bu ma kenn ni maa ngi meeting wala damay damay damay wallahi la azim yooyu intéressé wu ma sax parce que buñ bëggee éviter nii dañuy bañ dañuy politique ba duñ wax tamit kon musiba am léegi day jar nga wax après ñu da ngay politique mais yow nga jël yàlla def ko muy sa seede rek kon wallahu yashhad ala ma aqul Idrissa Seck ci biir wax ji pour nga xam ni Euh, alquran moom mënee su koo jàng ci benn làng ba peeg ko dégg ko bu dul luxal arabiya te moo dal Idrissa sekk mii xam nga dañ naan dafay jàng moom day liir dafa liir alquran day liir rek day liir tey nag gis na lu mu comprendre wala day sos man jàpp naa ne dafay sos man jàpp naa ko te dana feeñ ci kanam tuuti. Idriss sekk nee na am na fu mu wax ba tubaab la nag xam nga buñ tubaab la ko doon làkk bëggee def njaaxum dëgg dëgg nag euh, lii mu wax nii ñi mu ko wax ci tubaab rek la koy waxee nekk à l'aise parce que am na fu mu wax ba ni euh, la noble juif Saara moo Saara ku la ko def lu ab juif dund na fi ba faatu te lu ñuy wax yahud amul monsieur Seck xaw ma foo foo jànge foo gëstu delluwaatal ginnaaw saara dund na ba faatu le mot juif wala yahud loolu amul existé wul boobu moom boobu moom teg ko fële ah la la noobu juif saara boobu nga wax <clears throat> xaw ma nag da nga koy jubli sa tamit liñ ko nekk nga jël seen maam jooju daal ko ci daal ko ci yéege mën naa am mën naa am mën naa am looloo tax nga wax waaye taxul muy juif nag nekku ko borom këram ba nekku fa borom këram ba nekku ko maa kaana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan muslim walakin kaana xanifan musliman loolu moom alquran la juleer nañ ñi moom du lu ñuy lu ñuy làmbatu moom ci ñàkk teggin gi ci ñàkk tegginu Idrissa Seck gi li ma fi waxoon benn ustaaz bi doon waxtaan bay dugg ci biir néegu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bay nettali nam doon sangook nam doon nekkeek ay soxnaam ne woon naa leen fii loolu ustaas bi wax ku ko waxoon ci baayam mu fetal la te mi ngi toog ci télé plateau télévision jigéen ñi ko muy nekk la nan la suñu yaay Aïcha doon sangoo nu yonent bi doon sangoo sangoondoog ñoom ci biir néeg ba wallahi al azim nii la ustaas bi toog di ko nettali lu mel noonu la Idriss Seck mii tey defal suñu suñu maam Ibrahima alayhi am na fu mu waxee ca kii mu ni eh, Euh, une fois que Abraham a ensemencé gis nga semencé euh, baat boobu daal ah man mekk na ma trop xam nga semencé mooy ji ji comme ni nga jiyee nii suuf si di jëmbat mu ne suñu maa Ibrahima dafa ji ca Haajara ba am ca Ismaila ngeen baal ma sax ci façon waxin bi ci tubaab lu ñàkk teggin une fois que Abraham a a ensemencé Agar Haja Hajara la wax mu ne Agar dégg nga et a eu Ismaïl man bi mu indee loolu laay soo a xam ni ko nii rek jublu dégg nga ko waxee au lieu mu ne rek ah suñu maam Ibrahima ñu daal kii dénk suñ maam Hajara mu am ci Ismaïl loolu yomb la. waaye maam Ibrahima mu jël jiwam ba jëmbat ko subhaanallahil aziim gi ñàkk te teggin kenn mësu koo dégg beneen bi li mu waxaat te yi may wax yëpp ku ko waxoon ci baayam tey mu song la lii may wax ci yent yàlla Ibrahima ku waxoon ni baayam noonu la defoon ak woy juróom mu song la moom xoolaatal bii tamit nee na il était fou amoureux de de mu la le prophète Abraham il était fou amoureux de Sarah lii muy wax ku ne woon baayam noonu la meloon ci ndeyam tey affaire bi plainte bi ma ngi dal man loolu man wóor na ma pourquoi nga ko koo yëkkati di ko teg ci ab yonent sunu maam Ibrahim nga xam ne lu ñu am tey jii ca ñaanam gala la lu jii ca ñaanam ga la jógee wax bi beneen bi bii moom amul amul euh, lu ko gën a lu ko gën a euh, ñàkk teggin reyoon sax laa ko teg parce que nee na tous les prophètes sont descendus de la euh, de de la branche de Ishaq maanaam nee na euh, yonent yëpp ba ba yonent yàlla Isaa ñu ngi génne ci Ishaq Ishaq Yaqub Yaqub Yusuf ak ñoom mi ngoog Yahuza ak ñoom seen noonu ba Moussa ñoom seen ñëpp ba nee na ba Isaa génn ci mu ni nag Un beau jour, un arabe bédouin, <laughs> ah, un arabe bédouin d'Arabie, dingue, euh, leur dit, je suis, je suis celui euh, la liste et je suis la, le patron. bëgguma sax indiwaat propos yi ni mu ko indee mais daal ci gàttal ci wolof rek mu ni boobu ba léegi yonent yëpp ñëw nekk ay juif nee nañ nee xëy benn benn bis rek benn sàmmub arab ñi la ko waxee de un arab dara bi mu ni benn sàmmub arab jógee fële rek ñëw ni leen man maay euh, je suis celui qui qui qui clôture la liste man maanaam alxaatimi li ma sabax de loolu da fi weddi fii alxaatimi li ma sabax man Idriss Seck xam naa dafa yàqule rek dafa yàqule parce que jàpp naa ni mës na jàng au moins salatu fatihi benn yoon te wax na ca alxaatimi li ma sabax loolu la démentir fii. te xool ni muy ñàkkale faayda yonent bi nee na ñii benn sàmmub arab xëy suba rek ñii leen man maay tëj yonent yi et man maay man man maay seen patron yonent bi sax daawul waxee noonu bu waxee nag da xam ni kii mooy patron ba de waaye du bàkku du waxee noonu dégg wax bi nee na ah bu bu ñëwee nag bëgg a wax noonu daan leen daan leen ñi fi jaaroon ñëpp man lañ doon préparé mu ne ah loolu nag du yombe noonu loolu kenn ko kenn ko kenn ko wallahi lii mënu ma ko wax man lii mënu ma ko wax doo xam sax looy wax parce que bi nee naa la bu ñu bëggee def njaaxum français la ñuy làkk léegi bi ma ci gën a euh, bi ma ci gën a metti bi ma ci gën a metti euh, mu ni dem na maka waxuma sax ñëwaguma ci bim ne euh, euh, euh, maanaam il faut que les juifs de manière générale kalla qu'Allah a considéré comme comme un peuple élu mu ni c'est écrit noir sur blanc dans le Coran maa ngi ñaan Idrissa Seck yónni sax kenn ki sa taalibe yi mu wax ma loolu fu mu nekk ci alquran fan la nekk fan la nee rek aay bii la wala bu fekkee dafa am ñaari alquran nga yor beneen kaamil bu bokk tëg bii ma jàngoon nga wax ma ban la donc ñàkk njàng ma ñàkk njàng ga feeñ na fii feeñ na ci léegi nag ñu ñëwaat ci bu bu metti bi feebar ñëpp te mooy nee na bi mu dafa demoon màkka bi mu demee màkka mu gis euh, mu gis imam bi imaamu xaram bi kenn ci imaamu xaram yi bu ñuy sos nag du la wax ni diw la man ngaa jàpp naa ne du dëgg waxul dëgg sax waaye nag mi ngoog mu ni kenn ci imaamu euh, xaram bi euh, recevoir ko mu ni ko yéen yéen mais li ma jaaxal yéen fexe ngeen ba nit ñëpp ñëw fii ci di aj ci ci kaaba gi te pourtant mu màkka amul ci alquran alquran bakka wax xoolal nee na bakka li muy firi mooy jooy xam nga lu lu muy lu mu jublu ci jooy yi mur de lamentation euh, lamentation mooy foofu suñu Sidi Kabale moo doon su jootee ka def julleem googu loola la bëgg layal mu ni foofa la yàlla indiqué ni foofa la ñu war a aje mooy Jérusalem mooy ca miir boobu nga xam ne juif si fa lañuy dem di jooy mu ni loolu la bakka di firi mu ni man mu ni imam bi ni ko xaraam xaraam loolu bu ko wax ni ko moo man xam naa xam naa fi ñu war a aj xam naa bërëb bi te bisa gi ñëw damay bàyyi ba ñëpp toogandoo ma leeral leen loolu tuug ay sos la ay waxtu lu dul dëgg la lii xaw ma loo ko jënne am naa lu ma njort nag mooy njëg li waaye loolu du duma ko def ci ojo bii incha allah danañ ci ñëwaat ci nam gën a yaatoo waaye wallahi maa ngi xaar xalifa yi ñi leen jege nañ teg lii ñu déglu ko ngeen firil leen ko ci wolof lu mu doon jaaxumi ci tubaab la ko jaarale wax leen ko lu lan la wax ci wolof ñu condamné lii ba pare jël suñuy matuwaay man de politique gu moom waaye nag danaa def campagne gratuite boo xam ni kan laay campagnal mooy bu kenn wooteel Idriss Seck képp ku ko wooteel ku ko fal ku fal ku mel nii fal nga musiba fal nga musiba parce que toogagul te mi ngi wax lii mooy bu toogee àddina tukki. néew ma nañ wooteel kenn de waaye man danaa dana def lu ma man danaa wax sama bu doon sax juróomi nit laay waxal ne bu leen ko voteel sax danaa ko participer jàppalee ko sama diine ni bu bu kenn voteel Idriss Seck lii la sama mag ja ju baax ja Fass Touré wax na ko ci ojom bi suñu Abdou Aziz Touré yàlla ko yàlla dog dolli wér ku ko dégg lu mel nii la wax moom ku ne xam na ni du du toogaale yi xanaa mu ñàkk gëm mu ñàkk euh, dégg waaw mais moom ña ko jege ay conseil am dañuy xam li xew ci réew mi ñoo naan ko nangam am na mu daal ñëw def ci am parce que mi ngi dund actualité maas gu mel noonu bu ñu waxlu àddina tukki ah léegi nag kon ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp jali yi ñu yaakaar leefu di seen njaboot ñun de ñi ngi xaar lu mel noonu ñu yëkkati seen kàddu ndax lu wax ji wax ju ñaaw la ay sos la wax lu mu xamul la lu fa dugg ba dugg ci loo xam ne du domaine ci la maa ngi doog a yëg ni kii déggul alqu déggul dara alquran moom déggu ci dara dara dara dafa dem fekk luñ traduire bu ko defee day këru texte yi làmmiñu comme neex na ak ni muy ni ni ni muy sampee ni muy campagne ni muy nangam man de danaa def sama kéemtalaayu kattan fu Idrissa sekk taxaw de mënuma faa taxaw waaye comme boo joy moom incha allah mën nañ ko sànni fu nekk sama kéemtalaayu kattan danaa ko wax donte la danaa fexe ba juróomi nit yu ko waroon a votel bañ ko votel danaa ko def liñ naan dompat sax ci ci sot la bokk du ma ko wax nag ni bu leen voté Idriss Seck voté leen diw de man yow ma foofu man laal moom moom man sama lu ma mën ci xeex ko danaa ko def lan laa jublu sama diine laa bëgg a te kii ma gis moom lii muy def moom dalul xel. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.